billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakat Cheikh al Khadim mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen gërëm seen mbokkum taalibe Moustapha Gueye taalibe Sëñ Saam Sàmba waaye di soppeeb Sëñ Mbàkke ma maam soxna loo jóg tey ànd ak Sëñ Muntaxa ci liggéey Sëñ tubaab bi te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di leen wax na ñoo ngi ci waxtaanu yoonu gànnaar wi ñetteelu xaaj bi tolloog fukkeelu waxtaan bi ak benn toppaloon nañ leen duggug sëñ bi gànnaar ba agsi ba ñëw Sarsara lam mu fa waxante Cheikh Sidé Baba ñëw nañ ñëw nañ ci wirdu manxusun min allah bi wasati rasulihi waaye ñëw nañ tamit ca la nga xamante ne sii mooy euh, yam yónni woon ci réew mi mu toll ci fanweer ak ñett jox leen ay mbàjji ñu ñëw jël si li nga xam ne mooy liggéey bi mu doon liggéey te gasoon ko suul tey nag ñu toll ci ñetteelu waxtaanu gànnaar bi tolloog fukkeelu waxtaanu safar ak benn sëñ bi boobu mu nekkee ci Sarsara toog na ba benn bis mu am benn téere bu ñuy wax ma waay bu la mawaahibu ladunil xasalaani boo xam ne daf lay jàngal istuwaaru yónnente bi saahiran ak baatin nga xam ne lépp la lay jàng la lay wax mu amoon ko nag mu wër ko ci bagaasam yi gisu ko benn bis nag mu toog tari téere bi mu gis na mokkal gi dara wàññikoo ci waaye mu daal di wax Ibrahima Fall Joor nekk wëral ma ci gàddi naar yi téere boobu ñuy wax ma Mawaahibu Ladunni Xusalaani yi boobu xasalaani yi boobu nga wëral ma ko boo ko fi gisul nag nga jàll ci réew mi Ibrahima Dior dugg ci biir réew mi gànnaar di ko wër di ko wër gisu ko ba yàlla dogal mu ne nay dem ci réew ma dem ndar wër wër gisu ko mu del siwaat bi mu del see ba jaraar yi mu daal di jaar kër Ahmadu Buddin mi nga xam ne mooy ibnu Mouhamadul Hafiz Mouhamadul Faas Hafiz moomu nag mook bàyyi Ibrahima joor ay xarit lañu woon mu daal di nag kon na jaar ci euh, kii nga xam ne mooy Mouhamadou Boudin nii su ko defee sama wëllëre la ma jaar fi waxtaan ak moom ba mu fa jaaree ñu waxtaan ba nga xam ne yàlla dogal na xelam daj ci la ko sëñ bi yónni Ibrahima Boudin laaj ko foo demoon nii mu ne ko sëñ bi kat moo ma yónni woon genn benn téerab xam-xam bu ñuy wax ma waaye bu euh, ladunil xasalaan yi waaye wër naa ko fii fépp ëmma ko Ibrahima Boudin wala Mouhamadou Boudin daal di jóg ne ko xaaral ma ñëw daal di dugg ci néeg bi wër ay kàggoom ba gis téere ba dikk na ko téere baa ngi nii dara manqué ci soo demee nag nag ma ko ko joxal ne ko jox naa ko ko addiyee yonente bi sallallahu alayhi li ma bëgg nag mooy boo demee ne ko damaa bëggal mu nuyul ma ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad nuyul ma Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mu jox la nag ci lu leer waxuma nag nga dem ne dikk ne ko nuyu na la mun a fay nañ la rek yam ci na la jox seeni tont nga andil ma ko fii xam naa tontu li nag dafay gudd. waaye junj ji rek lañ ciy def su ko defee li ci des ñu man koo continuer yeneen yi nga xam ne mooy occupé waxtaan wi ndeke mu ko waxee loolu laata muy départ sëñ bi bind na tontu li teg ko di ko xaar ci sar saaba bi Ibrahima Fall Dior accès ba yàlla dogal mu nuyoog sëñ bi yëkkati téere bi ne ko ku ñuy wax Ahmadou Buddin Dey moo ko xool ci gàkkoom ba jox ma ko ma indaale ko nag daf maa joxoon daf ma laajoon. ne ma boo demee ci suñ bi ne ko na ma nuyul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ma nuyul ma Cheikh Ahmad Tidiane Serif ba mu tontu ma nga indil ma tontu li sëñ bi daal ne rocceet tontu la daal koy jox nga xam ne diggante boobu mënu fee bind dara nga xam ne kooku woon tont woon na ko jox ko ko ne ko demal yëg nga xam ne bi mu ko indee bi ko Ibrahima Budin ubbee ba gis la ca sëñ Tuubaa wax ci nuyu bi ko yonent bi delloo ak nuyu bi nga xam ne eh, Cheikh Ahmad Tidiane delloo na ko loola daf koo def aal ba ni mu faatoo aal jooju dañul ci moom lu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam delloo na delloo na lu nuyoo Cheikh Ahmad Tidiane Sarif delloo na lu nuyoo nee na nag daraja ja sa baay amoon jox na la ju ko rew jege ga nga xam ne sa baay jege woon na ko jege ko raw képp koo xamee nii jox nga ko wird bi mel na ne eh, sa baay ko ko jox mu jaarat ci ñëw ci man te loolu mbooleem ñi nga xam ne ñoom nga bokkal te ngeen bokk ci tund woowu kenn nattab liwul ne tontu lii te ñoom la jógee kon loolu xam naa ne foofu lañ koy tënk bi yàlla dogalee nag Ahmadou Boudine jóge fa ci jamono joo xam ne nii yàlla dogal na sëñ bi mi ngi sarsaara ba mu tolloo ci sukuraat ci war a faat Jibril alayhi salaatu wa salaam moo ànd ak waa ahlu badrin ñu wax ko sëñ Touba ne ko Ahmadou Boudine day ma ngay waaj a faatu fii ñu toll day ma ngay faatu fekk baayam waxoon na ko moom Ahmadou Ahmadou Boudine waxoon na doomam ne ko su ma faatoo bu ma tëddee nday ndeyjoor bu ma wëlbati. bu ma tëddee ba toog càmmoñ bu ma wëlbati waxuma la nga di ma sang ma nga dem ci sëñ Tuubaa ba mu jox la ndigal mu daal dina kon léegi naa fas yéene yabal délégation ñu dem Sarsara waxi ko sëñ bi sëñ bi it bi ko ko Jibril tàggee ca bañ jullee timis la daal di woo ñenn ci mag ñi jox leen ay warukaay ne leen lu mu gaaw gaaw wala lu ngeen yeex-yeex na ngeen daal di dem fanaani ci dëkk boobu di jaraar yi bu ngeen demee ngeen jël leetar bi joxal ma ko doomi Ahmadou Buddin jooju ndax Jibril alayhi salaatu wasalaam wax na ma ne kat wàcc na bu liggéey léegi na ngeen gaaw nag ndax lu ko may danañ yabal ay ndaw ñu jëm fi fii ñu daal di gaaw dem te diggante boobu wax nañ ne téeméeri kilomètre wala lu ko manqué tuuti bi yàlla dogalee ñu arsi dajanteeg ñu noddu suba ba julli dajanteeg doomi Ahmadou Boudin ji ñu xamal ko ne ko délégation bii kat ci sëñ ba la jóge mu laaj leen lu leen tax a jóg ñu jël leetar ba jox ko mu daal di jàng ba mu jàngee rek moom da koo def àll daan ne man de jaaxle naa ci sama ñaari jaaxle am naa ko ci sama baay eh, ñaari jaaxle yi am naa ko ci diggante sëñ Tuubaa sama baay ndax sama baay de àggoon na ci yàlla àgg yàlla goo xam ne ci defoon naa ne du jox kenn ay mbiram waxuma la di ko jox ab kawri te sëñ Tuubaa mii nga xam ne moom ci wàllu boppam date bii ngeen wax ne heure bii ngeen wax ne moom ngeen jógee eh, Sarsara heure boobu ñett la fekk sama baay faatu te maa ngi doon waajal wut délégation pour ñu ñëw wax si ko lii daal man lu ma jaaxal na lan moo ko xamal ne ko sama baay faatu loolu nag te sama bàyyi neen moon bu ma faatoo balaa dara xew na nga dem wax ko sëñ Tuubaa yéen ngeen agsi ci heure bi te heure boobu ngeen wax ne ngeen fa jóge la fekk sama bàyyi ah, di faatu mu yéem ko lool mu xam ne sëñ Tuubaa amul morom ñu daal di daal di dellusiwaat bi nu demee ba jëmmi jamono sëriñ Tuubaa jóge na Sarsara dem Jaaraan dem doon siyaare ji Ahmadou Budd bàmmeelam mu fekk fa mar wu nag ndox mu jafe ba àggee ba siyaare barab ya mu soxla ndox waaye ndox munu faa am mënut am muñ muñ naan munuñu am muñ jàpp mu laaj na ndax ab teen am na fi ñu ne ko waaw waaye teen booba ba mu gëjee sotti ndox kenn xamul kañ la mu daa di euh, tibb ci suuf si ñaan am ko mu ko jox na ko demal nga sànni ko ca mbënd ga ba mu demee ba sànni ko ci rek teen ba tépp di sotti ndox mu baree bari nga xam ne jaraar yi la tuddoon waaye Euh, biirul maymun la sëñ bi wax ne nañ ko tudde barab boobu sababu dem ba it mooy loolee ko yàlla waxoon ne ko boo demee gànnaar am na fa ñu amoon ay cër ñu ma jaamu ba ma jox leen ko waaye nag boo fa demee danaa la teg natt jox la cër yooyu ndax ñu leen fa wutu ah mënuñoo yor yooyu cër kon mel na ne cëru ahmadu buddin boobu sëñ Tuubaa jël na ko ci eh, dem googu mu doon dem ak loolu nga xam ne feeñal na ko bokkoon na ci li feeñ ca Sarsara am na ku ñuy wax Modou Fall alxuraan daa bokkoon ci ngir goo xam ne képp koo fa xam si mokkaloo fa alxuraan duñ la teg fenn te duñ la teggil dara it nag lu ne danañ la ko def te moom mu bari lu muy fàtte lool bi nga xamee ne nag Serigne Touba xaada loxo maxtaara loxo mi ngi gànnaar mu ànd ak ñaar yu góor ñëw di ko siyaare si ak moom muy ñett bi mu ñëwee itam liñ defoon seenug listixaar mooy Serigne Touba bu yombee gis ñu xam ne kat seen aajo dana faju bu fekkante ne yombut a gis nag ñu xam ne kon ah seen aajo di faju bi ñu yegsee nag ñu ngi fekk sëñ bi muy doxantu ci gannaaw xayma bi bi nga xam ne ci la nekkoon nga xam ne ñu ngi koy séen waaye amuñu dara lu dox seen diggante ak moom bi ñu agsee nag nuyu ko mu toog bu mu toogee tuuti ñu daal di toog mu laaj kenn ki ci ñoom luy sa soxla mu ne ko damaa amee bor yoo xam ne sii kat dama bëgg ma ko fayal ah mu laaj ka ca desit mu wax ko lu mel noonu waaye mu laaj Modou Fall alxuraan mu ne ko damaa bokk eh, ci ngir koo xam ne si ku fa mëkkalul dañ lay xeeb dañ lay xas sama ma bari lu may fàtte ma bëgg nag nga may ma alxuraan moo ko mokkal ci mokkalin wu rafet sëriñ bi ne ko wutal li ñii di wut mu ne ko loolu daal mooy sama soxla mu ne leen dem leen ca xayma ba bi ñu àggee fekk nañ mu toog ba di leen xaar bi ñu agsee mu laajaat Moodu Fall soxlaam mu wax ko lam ko waxoon sëriñ bi daal di jox ñam àndaloon seen soxla sosé ne ko yow nag mën ngaa dem ca teelu bi yi nga xam ne bam mu fa demee moom am na fa lu toll ci ñaari weer yu mat sëkk bàyyi ñam àndaloon ñoom ñu dellu bi nga xamee ne weeru weeru weeru koor bi teru na sëriñ bi génn ci xayma bi di xool di xool ba yam ci Modou Fall daal di koy junj mu ñëw bi mu agsee sëriñ bi ne ko euh, daal di teg loxoom ci mbaggam di ree boole kook di raay boppam bi di ree naa ko jox naa la alxuraan ci firi ak jàng ak taj tajwid ataytuka alqur'ana tafsiran wa tilawatan wa taj tajwidan lu man ñetti yoon lépp nag ñu ngi ànd di dox bi ñu agsee ci mbaar mi sëriñ bi toog ci toogukaay bi ne ko jege si mu jege si mu daal di dóor ci boppam ne ko iqra jàngal mu tàmbali faatihatu di tari ba alaa yajiduuna maa yunfiquuna mu ne ko taxawal mu taxaw sëriñ bi ne ko dellul ca taalibe ya mu dellu ca taalibe ya ca bis ba ca topp mu ñaareelu fan ba mu woowaat ko mu ñëw defaat nam defoon mu tàmbali innama sabilu di tari ba ci wallahu yaxlamu ma tasnahuuna mu ne ko taxawal mu taxaw sëriñ bi ne ko dellul ca taalibe bis ba ca topp mu ñetteelu fan ba mu wowaat ko defaat nam defoon mu tàmbali wala tujaadiloo di tari ba ci minal jinnati ci sëriñ bi ne ko mi ngoogu dee ko jànge noonu ñetti fan yu ne nga wàcc Modou nee na sëriñ bi saa su masaana dóor ci sama bopp bi day mel ne ku jàkkaarloog arafi alxuraan yépp ñu mel ne lu ñu sotti ci sama dënn ba weeru koor ga jeexee nag ci la ko sëriñ bi yeewu mu door a dellu kon loolu bokk na ci la nga xamante ne sii xew na ca fa nga xamante ne sii mooy ah gànnaar ca Sarsara waaye xam ngeen ne bokk na ca la xew ca Sarsara tamit sëriñ bi jóge na fa dem jaraar yi waxoon naa leen ko siyaare ji nga xam ne mooy Ahmadou Boudin ba muy demee Cheikh Sidiya Baba la àndaloon te Cheikh Sidiya Baba ñëpp xam nañ ne. taxante woon naag sëñ bi ci gàddaay googu nga xam ne mi ngi ko doon bëgg a def nga xam ne day dem di tuxu ngir am ñax sëñ bi na ko bu doonte ne am ñax képp moo ma tax a jóg de du ngeen ma fi bàyyi waaye nag am ñax taxu taxu ma jóg mu xaqante ci sëñ bi ma mere ko waaye nag defe na mën naa wàññi sëñ bi dara waaye ba mu demee gis nañ ne tubaab yi ak ceddo yi dañ koy jàpp di ko sonal di jàpp jur gi di ko bu ndoxataal ba mu xat fam dem nga xam ne bu bu delsee ci sëñ bi day am jàmm waaye bu delluwaatee nekkaat ci loolu bu mujj mu daal ñëw nag far toog ci sëñ bi nangootu fee jóge benn saa toog fi nangootu fee jóge benn saa bi nga xamee ne yàlla dogal na loolu am ñu war faa jóge nag dem fi nga xam ne mooy tintu muxsin tintu muxsin nag am na xew-xew ñaari xew-xew yu fa am te yépp ci naari gànnaar yi la sosu ban demee sëñ bi defaral nañ ko fa kër goo xam si waa kër Cheikh Sidi yi ñoo ko defar boole ko defaral ko fa xayma bu mag ak xayma bu ndaw léegi geneen kër gi ci dañ ko defar ca kaw dafa xayma bu mag ak bu ndaw muy ñaari kër léegi nag am benn tubaab boo xam ne si jamono jooju moom moo jiite woon mu Mauritanie dafa bañoon sëñ tubaab ba jéggi dayoo ba benn bis mu wut benn naar ne ko damaa bëgg nga ñëw demal ma tintu muxsin boo demee boo ma mënee reyal sëñ tubaab danaa yëkkati lu toll ci juróom fukki junni jox la naar bi daal di tàggoog sagom daal di ne kon day daal di ñëw bi mu ñëwee ba Sarsara yàlla dogal sëriñ tubaa ci wàllu boppam bi nga xamee ne ñëw na mu daal wax naar bi lan mooy sa soxla mu ne ko dama bëgg a jébbul ndeke la sëñ bi toog xool xam pexey naar bi xam ne kii dafa am lu ko tax a jóg te bëgg na ko xeet ni te bëgguta loro sëriñ bi daal di bind ñaari way ilaa siwaaya durraka saytaani maa lahuma alla yamina sultaani allahu rabbi wa nabi mujtaba sala alayhi man adawu wajtaba xilli wa xibbi wa aba madarati waraama man rabbul wara masarati ne ko nag dee ko tàmbali di jàng guddi ak bëccëg daal di jël suuratu yaasin wax ko jox ko ko nekkoon ko nag dee ko jàng ca kaw nga xam ne day tudd baatub yaasin bi ñetti yoon door a mottali saar bi bam jeex teg ci bayit yooyu nga xam ne daanaka nelawatul nelawatul mi ngi koy tàggaleeg moom toujours mi ngi koy jox booba sëriñ bi mi ngi junj Cheikh Sidiya bi mu digalee taalibe yooyu ñu defaral ko ak kër ca wetu gàdd ga gàdd ga ba mu noppee nag sëriñ bi wax Cheikh Sidiya mu ànd ak moom ñu sanc ko waxaale naar boobu mu ànd ak moom ñoom tamit ñuy jàng bayit wi ni mu ko daan jànge bañ àggee ci guddi googu nag ci la putpi ko ba mel ne na ko ndeyam jure woon te fekk na booba ku ñuy wax euh, sëriñ Mouhamadou Lamine Mati mi nga xam ne ndeyam ak soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay ak ku ñuy wax sëñ Amar Fall Ndate ñoom ñaar ñoo fa nekkoon sëñ ma Lamine moo doon daanaka bras droit sëñ bi waaye sëñ Amar Fall Ndate dafa bokkoon ci buur yi daan war a falu waaye mu bàyyi lépp ñëw ànd ak sëñ bi nag ràññee ko ca lool ba mujj ñu xam ko lool léegi bi nga xamee ne sëñ Amar Fall Ndate toog na ba mujj mu gis naar bi génn ci barab bi mu nekk def yaramu nen gàddu gees yi wuti sëñ bi mu daal di gaaw woo sëñ ma Lamin Mati sëñ la ña ngi ñetti mati la daal di woo ne ko gaaw wala gaaw bu ñu yeexee sëñ bi naar bu dana ko lool bi nu agsee nag fekk nañ naar bi tiim sëñ bi yëkkati geesi ji bay waaj a dóor waaye am lu ko lonk ci kaw mu waat ñaar yoon mu am lu ko lonk ci kaw ñetteel yoon ca la ñuy ñëwee rek daal di koy fët tër ci suuf daal di koy jàpp nag commencé di ko dóor waaye nga xam ne sëñ Amar Fall bi mu ñëwee dafa yuuxu moom ca ca kaw. si yéen yuuxu yooyu nag mel ne euh, musiba woo xamee ni yoox na si duutu fa jóg bu mukk fekk na bi loolu amee sëñ bi jóg na leen nag bu leen ko rey bu leen ko rey laa taxtu lool laa taxtu lool bu leen ko rey ñu daal di bàyyi naar fekk am na ñoo xam ne ca kër ga sëñ ba njëkkoon a nekk ba nu ñëwee tàgg ko démb na ko dañuy war a dellu kat ba leen sëñ bi yeewee ne leen xaar leen ba suba daal leen bàyyi ci kër gu mag ñu nekk mu daal di yabal ñu nga xam ne ñoom ñoo doon dal ci kaw naar bi muy sëñ Amar Fall Ndate ak sëñ Lamine Ñang Mati ne leen dem leen ngeen wol ma gan ñooña ñu daal di dem woo gan ñooña ñëw sëñ bi ne leen dama leen a bëgg a booleeg naar bi kat ndax day sama xarit ma bëgg ngeen ànd ak moom ba ca fa nga xamante ne fii fa la tubaab yi di taxaw muy falañceer ba ngeen bàyyi ko fa waxu leen it ne leen nangam la doon def boolewu leen ak ñee it ñu mën koo wax ne ko dara rey sëñ bi ndax ko rey ci yoon waaye naar bi daal sëñ bi daal di jël buubu jox ko yëkkati lu tool ne la nga xam ne moom la ko tubaab ba diggoon juróom fukki junni yi jox ko mu ànd ak ñoom ñu dem boo gisee mu jox ko bayit yooyu nag da koy wan ne ko man fii ma nekk lor mënu ma fa fekk ndax amatuma lenn lu ma mën a fekk lu dul mbégte kon xam na naar bi xam na pexe mu waaye nag bëggoon na bu naar bi dëgëree bopp ñu mun a ko del jàng surati Yaasin ndax boo ko dee jàng lenn loraange du ko ci fekk kon histoire boobu noonu la demee loolu xew na ci fa nga xam ne mooy Tintu Moxsin ba ñu fa nekkee ba ca ëllëg sa sëñ bi fi néegam bi nekk mbaaraloon nañ ko fi am mbaar ñi nga xam ne ne mooy sëñ am satu ñoom nekk ci kër gi nag di ko làkk di wut ab ñag def ko lu mel na saara ñag daggi bant di gor ci jamono jooju am beneen naar boo xam ne nag gis nañ ko mu ñëw di dugg si mu daal di koy dogale am ko ñëw ci moom naar bi laaj ko ne ko ndax ana sëñ bi mu ne ko mi ngi fi nekku mu ne ko dama ko bëgg a gis mu ne ko mënoo koo gis mu ne ko mbaa jëppoo ne damaa mel na ñi koy bañ ñëw di ko sonal man de damaa ñëw di dolli ko sama ci moom sama diggante yàlla mu ne ko daal mënoo ko gis naar ba xaqanteeg moom mu daal di boole ñaari mbub bi lafi mbub mi imis bi xëcc ko boole ko ba naar bi yuuxu sëñ bi génn ci naaj wu tàng jër sëlul dal bi mu ko jàppoon ne ko yalax sëñ bi andi naar bi ba mu ñëw woo leen ñoom ñëpp ba ñëw mu ne leen kan moo ci yuuxaloo naar bi ñu ne cell kan moo ci yuuxaloo naar bi ñu ne cell kan moo ci yuuxaloo naar bi ñu ne cell mu yàgg ñu ne ko diw mi moo ko yuuxaloo sëñ bi fattasa ko ne ko jógal nga jël say bagage fii da nga fay ñëwoon ngir bëgg mu ci waaye bés naka tey kenn mënu laa tee dem sawara waaja daal di tàmbalee dem di jooy jaaxle lool sëñ am satu jaxate ñeewante ko lool ak ña fa nekkoon ndax jot na fee liggéey te liggéey boobu bëgguñu mu san sëñ bi teegaa jéggal waa ji mu ne ko mënee ko toog mu yàgg mu ne ko mënees na ko sëñ bi ne ko mëneesu ko sëñ am sati ne ko mënees na ko ba muy ñett yoon sëñ bi ne ko ana naka lañ koy mëne mu ne ko waa asaabu kaf yi day rus ga leen yàlla ajjana ga leen yàlla dugaloon rus leen bañ dugaale ci seen xaj ba day la leen yàlla mayoon xañu la ko te loolee leen yàlla mayoon xañu sëñ bi daal di muñ sëñ am satu xam ne na koon pexee ma ngi waaje ant mu ne ko ndaxam mënees na ko de waaye nag ci charte yi laa koy tegal da koy dem woo mu ñëw naar baa ngi nii toog mu dem fee ngeen doon tàmbali di liggéey mu futti ko ba mel na ko dayem juri woon bu mu teggi dég bu mu teggim tax bu raamee ba agsi ci naar bi jox ko ñaari loxo ne ko tuubal naa la bu ko naar bi jéggalee loola dana mën a nekk bu ko naar bi jéggalul nag loola man mënuma ci dara ñu gaaw ñëw song ko ne ko mu daal di futti ko di raam ba bi jox ko ñaari loxo ne ko dama bëgg nga baal ma naar bi toog mu yàgg mu yëngal bopp bi na ndaxam day jomb naa bu ëllëgee am kuy dugg sawara ci xeetu yonent bi di tàbbee ci man sëñ bi na dégg ngeen jombook naar bee fi mu jomb ak a sori xanaa lu ngeen ñàkk ñàkki bët gis mandargam ab daal mi nga xamante ne si naar bi takk na ko bu ëllëgee dee leen ànd ak tey mu daal di wax ki nga xam ne mooy waajoo ju ne ko nag bis naka tey dana nga xam ne loo am am sa tool la ko may kon nag saye boo nga di k lëggéeyal bu la gërëmee yàlla gërëm la loo fi amoon te sa tu la ko jox loola xew na foofee nga xam ne mooy tintu mu xin noona la fa sëñ bi nekke audience ya di dem liggéey ya di ñëw audience bi di dem xiif yaag coono yaag ñiy jóge ci réew mi ñëw di ko visite mu ànd ak njabootu boppam sëñ Modou Moustapha sëñ Mamadou Fadal sëñ Mor Rokhaya Bousso sëñ Massamba Mbacké ak ñenn yi doomu jigéen ba am fa ñoo xam ne si sax fa lañ gane jamono sëñ ba nekk ak naar ya ca noona ba yàlla dogal mu jóge fa ñëw fi nga xamante ne fii mooy jaraar jaraar yi yaakaar naa moom bu ma juumul def na fa lu toll ci ñaari ñaari at ak la topp jaraar yi googu moom mu fa dikkee am na geneen couleur naal goo xam ne sii ci turu Cheikh Sidiya Baba lañ ko jaare dañu doon maral maralu metti ba seen di dee ñuy génn di màng di gàdd fu nañu di fa dem waaye mu mel ne yëf yi gën a metti seen xel dem nag ci léegi kat Cheikh Sidiya Baba mi am na ku àndaloon koo xam ne si nit ak yàlla la te lum ñaan yàlla yàlla dana ko ko may nañ dem waxtaan ak moom ñu ànd ak moom dem mu yóbbu ñu ci muy boobu mu fi àndaloon te mooy sëriñ Tuubaa ñu ñëw wax ko Cheikh Sidiya Baba fekk na am na koo xamee ne que nii yàlla dafa dogal dafa géntoon ci biir gént gi wax ne sëriñ bii nga xam ne ñu ngi fabu di fa dem day gént naa ba nu demee mu bindal nu xasida goo xam ne si mi ngi ko tënk ayab alxuraan bi ñu naan wakkaan xaqan xale naa nasrul muminin fekk na la ko jiitu sëñ bi dafa xëy woo sëñ Amsatu Jaxate bind wakkaano xaqan ba mu ñëw mu wan ko ko ne ko yaa ko gis Amsatu wan ko lépp waaw mu ne ko dafa am ñuy ñëw di am lu moo a faj seen aajo daal di dem denc ko ne ko dama laa wax def la nga nga seere ko bi naar yi accès ci turu Cheikh Sidiya Baba ka jël parole daal di yëkkati ne ko Mbàkke day noonu lañ fee ñëw ngir gis nañ ne kat yow yaay jëwriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla du delloo sa ñaan te wóor nañu ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa te yow te yaa leen di ràmm yaa leen di yaa leen di yaa di jàpp ñu bëgg nañ nga dimbali ñu tiinul ñu sunu borom ndax maral bi metti na. te kenn ku nekk fa nga nekkoon jóge nga kenn ku nekk nga jëm ba nga fa demee moo gën fa nga jóge te àll baa ngi weex tàll ne am medd ñu bëgg nga dimbali nu ñaanal ñu ci yàlla am ci koo xam ne si dañ ne ko waxal la nga géntoon mu daal di jóg daal boobu daal ne ko man de dama gént bi ñëwee koo tënkee wakkaane xaqan fekk defoon na ko ba woon ko sañ am satu ca na xaaral ma ñëw daal di dem génne xasida ga nga xam ne xasida ga wóor nañ ma bind ko ca tàng tàng ba bindoon na ko ndax xamoon na naar yi da ñëw bi ñu koy jàng ñu sant ko gërëm ko yàlla ji sotti fi ab taw di taw di taw ba taw ba nag jéggi dayoo nga xam ne ñoom ñoo mujj ñëw ne ko ñoo la doon ñaan ab taw danoo bëgg nga dimbali nu ngir yàlla téye taw bi ndax gis nañ ne kat njariñ lañ ci doon xëcc waaye mu ngi dem ba juri loon loola it fekk na Sëriñ Tuubaa ci xumaan kon xam naa duñ def lu dul incha allah jël fukkeelu waxtaan bi ak ñaar toppal leen la fa xewaat ca nattu ya nga xam ne jëlaloon na ko fa taalibu ya muy ba mu ak waa lu badrin nga ko fa daan seeti ak yónente ko fa dikkaloon ak jàngoro ja ko fa daloon yooyu yëpp danañ ko indi ci fukkeelu waxtaan bi ak ñett ba noonee mu fa jógee ba Cheikh Ibra Fall ñëwoon fa doon defoon intervention ci góor gouverneur général ba mu yegee ne sëñ Tuubaa ngi waaj a ñëw ànd ak moom ñu teg gaal ga teg ci alxuraan mu digal gaal gu njëkk gi ñuy jàng alxuraan mu gaal gi mu dugg ñuy jàng ma bu ak gës bu ngir ne moom sallallahu alayhi wa sallam la àndal yàlla la jiital mooy téere alxuraan yooyu loolu lépp incha allah dinañ ko ñëw ci ak faram fàcce ñoo ngi jégalu nag ci lépp lu ci dëng lu ci jub ñoo xam ne suñu boroom la lu ci dëng ñoo xam ne suñu jéem la eh, ndax mbirum sëñ Tuubaa weesu na foofu waaye bu ñu doon jëfandikoo eh, mbind yëm fa bind comme ni ñu doon jëfandikoo ci wérdu bi nañ ko jàngee yaakaar naa ne waxtaan wi dana gudd ba jéggi dayoo moo tax ñu tënk ko noonu rek lenn lu ci lañu cof ko incha allah di leen jox dig dajee nag ci fukkeelu waxtaan bi ak ñaar seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëñ Samba di soppi sëñ Mbàkke Soxna Lo in nuridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi rahmani rahim alif lam mim innama sabil wala tujadilu bismillah الله من كل كريم أكرم من أمه خاد الله تكرم أسلم له كل كأن إيمان ولا سمع إنسان للرحمن الله الكريم الأكرم من أمهم خال له تكرم أسلم له